fàttaliku dee moo gën di fanaanee la ndax fàttaliku dee dafa am solo lool ci ab jullit bu am xol buy dund digganteem ak boromam yàlla na ko suñu borom defal ndax dana dolli ragal yàlla dana dolli tamit jaamu yàlla waaye dana dolli yaakaar yàlla dana dolli itam wattandiku àq yi dox sa digganteek bindeef yi waaye dana dolli itam liggéeyal yàlla ci bindeef yi ngir am tiyaaba ak yiw woo xam ne ni bu ëllëgee danga ko mën a jariñoo Sëriñ Tuubaa Euh, luy fàttali jullit bi ëllëg ak lu koy fàttali dee bari na lool ci ay mbindam bari lool ci ay jàngaleem am na bis mu woo mag ñi ba ñu bari ñëw mu bindal mu tombal leen ñetti tomb benn bi mu tomb ko ci kanam bi ci des mu tomb ko ci digg bi bi ci des mu tomb ko ca gannaaw daldi bind ca ron tomb ba ca kanam ak miim bind ci ron tomb bi ci digg bi ak nuun bind ci ron tomb ba ca gannaaw ak deel ak daal Ah, ne leen xam ngeen sama tomb yi lu ma ci jubloo ñu ne ko buñ ko xamee de jël mbàkki mu ne day jommale de dal ni tomb bee ci kanam de mooy àdduna tomb bii ci digg bi mooy nit moo tax bi da ci nuun nee na tomb bi ci digg bi nag day dàq ba ci kanam moom lay dàq waaye xam ngeen fu muy mujj ak mooma ñu ne ko ah mu ne mes da ko jàpp mu ko àdduna mbokk yi bu ko kenn doon jàpp kon ñi nga xam duñu ay jullit nga xam ci la ci dàq ko la ñu yendu di ci fanaan kon ñu jàpp ko te kenn ku ko mas a téye ak sa ñaari loxo ba jekk ko wala nga tër ko ni mu xar di amut te du am mukk daal ne tomb bee ca gannaaw de mooy dee moo tax mu bind ci ak deel nee na moom bi ci digg bi lay dàq muy nit waaye xam ngeen fu ñu mujj ak mooma ñu ne ko ah mu ne nuus nuus rek da koy jàpp loolu la alquran naan qul innal mawta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum yow yonent bi kat nee leen dee mi ñuy daw dañuy faf taseek moom kenn mënu koo daw wama anhu mafar ñu indi it tey ay kàddu yoo xam ne nii lenn ci kàngami sëriñ bi muy ñi daan woy sëriñ Mbay Jaxate daana ko wax te bari na ci ay mbindam lool luy fàttali jullit bi ëllëg ak lu koy fàttali dee ak waxi sëriñ Moussa Ka bu ci xajut bu ëllëgee incha allahu ñu indi ko ndax seeni wax yu ama am njariñ la te it yu neex a dégg la sëriñ Bay Jaxate am na fu muy waxee ne fàttee ko bon fàtte dee rek kay waral nit a bew burul ko nag fàtte kon kenn du reew ko bew burul ko nag fàtte dee kenn dootu am lu ko saf kenn dootu am lu ko soofit dee waral ku ne sew am na fu muy waxee it ne kuy dund war nay xalaat at yi di ñëw ak a dem te xam ne am na ca at moom moos ca ngay faatu at mu a def fukki weer ak yaar di deeka teru dang na ca taafeera weer fekk ca ngay faatu te weer wi def ay bis yooyu faw bis dana ñëw boo xam ne mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu bis bu na ñaar fukki waxtoog yeen trombale wéy te am ca wow faw sa guru rot ca cay faatu te bis bu ñëw walla weer mbaa waxtu wala semaine kem loola jóg na ca saw fan ba ba ngay faatu ku denc téeméer te bis boo jàll teggi dërëm jeex nga dalay bett farlul ci ibaadaatu yaram wi ngay yafal ak xont ak diraaya ka diw suuf rekk koy mujje ak sax yi gannaaw faatu am na it fu mu waxee ne moom sëñ ba jaxate bul geesu kenn wéyal bul faale kenn jëfal ku dee ñu fob suuli fee del si wax ak ña fa des wóllëre mat la fas koo xam ne kii gorewul àdduna mi gorewul ku nekk lay xalambas dunyaa soxal na ku nekkub sox bu rëy di ko nekk fa sox ba tàkkee ba jee ba ñee rët mooy soxal ña fa des kon àdduna loolu képp la kon nag kenn ku nekk boo dëkkut ci fàttaliku dee it ndax loolu xëy na métti na suñ borom yërmandeem moo tax léeg-léeg mu ñu koy fàtteloo waaye léegi léeg it nga dellu nag ci sa bopp waxtaan ak sa ngeeganaay xam ne kat bis dana ñëw nga tëdd foo xam ne nii bu la weñ dalee doo ko mën a dàqal sa bopp dangay mar lool doo mën a naan xiif lool te doo mën a lekk ëpp ñëpp soxla te doo mën a wax kenn sa soxla doo mën a yëngal sa benn cër sukuraat metti lool dee it métti lool bu ñëwee ci waxi sëriñ Moussa Ka dana ci feeñ bu digg ba jeexee ba ba ruugay wujj yàlla keroog mooy gën a métti juróom-ñaar fukki ràbb yu sar ak yeneen kon léeg-léeg di ko fàttalikukat am na solo te dee day wextan wu wex a wex wu métti woo ne ni ñëpp koy mos ah sëriñ saalihu radiyallahu anhu daana wax na nag suñu borom ku ko fàtte yërmande ma tax waaye ku mu fàttali boppam doo tal lu dul moom kon nag léeg-léeg nañuy fàttaliku suñu borom bala ñoo fàttali boppam dañ koy fàttaliku bu baax a baax boo ëllëgee ñu jàllaat ci loolu ñoo ngi soññaat mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp liggéey bi waa daaray xikmatul yawmi di def ngir di ko liggéeyal lislaam